yaa ngi amal seeni i congrès d'investiture Amadou Ba doon ki ñu tàmm tànn ko mu nekk seeni i candidat les libéraux réformateurs ñoom daal di nañ tànn kii di premier ministre bi fas yéene koo gunge ba mu jot réew mi. bu Sénégal dana jàpp à un moment war nañu mën a pour bu ñu boole dajale fexe ba ñëpp gis seen bopp ci mbir mi loolu nag kii di Amadou Ba xamle na ni bis bu faloo dina fexe ba fépp fu sénégalais nekk di jànkonteel ay jafe-jafe mu taxawu ko saafara li ni mel. ndox. Sénégal bis bi nag nekkoon premier congrès ordinaire RDR yeesal tax na ba progressiste yi daldi nañ tànn Modou Diagne Fada ngir mu nekk seen président wu parti. man maa ngi bëgg yàgg ci seen politique yi ñu am barewul def nañu politique fanweeri ak ak juróom. politique bu xam ne politique ànd ak farlu ndax su nekkee gone ba léegi étudiant xale ñoo ngi ci làng politique yi di xeex ngir suñu réew. stade Marius Ndiaye feesoon lool ak i militant ku ne di fësal boppam bis bi xumboon lool ci ay caada ak cosaan.